Mm. xam naa mm. tey comme dañoo xaw a yéex a dugg te tamit am nañu membre yu bes yu bokk ci Zoom bi te ñu ngi mm. soog a tàmbaliwaat jotaay bi ñuy daje weer wu nekk di ko defee ci Zoom bi dañuy barkeelu rek e, tudd lenn ci jaar-jaari Maulana Cheikh Tidiane radiallahu anhu yu ànd ak ay dat ndax waxtaane ñu baax ñi dafay tax yërmande yàlla wàcc rawatina ki nga xam ne nag kudul ab yonantu rek ci mbindeefu yàlla yi moo la féetee kaw muy Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu benn nit yàlla def doon wax ne bokk na ci njëriñ gàmm bu ñu waxtaanee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam tax nga sopp ko boo ko soppee mën naa tax nga di ko xalaat mu nekk ci sa xel ba nga géntu ko te soo ko géntee gis ko ci nelaw amul sikk ko gis ci lu nelaw te yonentu sallallahu alayhi wasallam wax na ne ku ma gént man nga gis wax na ne ku ma gis ki nelaw danga ma gis ci lu dul nelaw te nag gis yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lu dul nelaw mooy mébétam waliyu yàlla yëpp bu ko defee sidna cheikh radiallahu taala anhu ci gàttal mi ngi juddu ci atum junne yu teg téeméer ak juróom fukk atum junne yu teg téeméer ak juróom fukk ci gàddaay yonentu sallallahu alayhi wasallam mille cent cinquante boo ko doon seet ci juddu yonent Yàlla Isa mi ngi tolloog mille sept cent trente sept ci dëkk bu ñëw Aynul Maadi ci saxraawu Jazair ba bi nga xamee ne nag am na juróom-ñaari at muy mille cent cinquante sept ci gàddaay gi di mille sept cent quarante quatre ci juddu yonent Isa ci la mokkal alquran at mi ñu bëri ci ñun di dal jàng ci la Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mokkal alquran bi nga xamee ne nag am na fukki at ak juróom muy mille cent soixante cinq ci gàddaay gi di mille sept cent cinquante un gannaaw juddu yonent yàlla Isa alayhi salaam ci lañ wax ne ci la gàlloo muhimmatul iftah maanaam téere yi ñuy jàng ci gox bi mu dëkkee yëpp jàng na leen te ye ca gën a am solo Buxaari ak Muslim ak Mudawwana ak yemel noonu daf leen a mokkal teel leen a mokkal loolu radiallahu taala anhu bi mu amee fukki at nag muy mille cent soixante six ci hijriya di mille sept cent cinquante deux ci ga ci juddu yonent yàlla Isa ci la ñaari way juróom yu tedd yooyu génn àdduna dellu ci arrafiqul ala ñi nga xam ne ñooy eh, baayam ak yaayam yu tedd yooyu nday Aysatu ak Eh, góor gu tedd ga muy Muhammad bi fatxil mimi mm-hmm. eh, ci baax ga ci ragal yàlla ga di sëtu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne am na ñaar fukki at ak benn muy mille cent soixante onze hijriya tombeeg mille sept cent cinquante sept ci la cheikh radiallahu anhu njëkk génn jëm ci ñooñ yàlla fi mu njëkk a dem nag muy Faas nga xam ne moo doon capitalu xam di capitalu ruux maanaam capital xam-xamu zahir ak kapitaalu xam-xamu baatin ni mu nekkee woon jamono joojo di kapitaalu maghrib ci zahir la ko nekkee woon tamit ci baatin ba mu demee nekk ca jaamiatul qarawiyin di fa sàkku xam-xam waaye di fa dajeeg ñooñu yàlla radiallahu taala anhu mille cent quatre-vingt-un nag di ci hijriya tombeeg mille sept cent soixante-sept ci miladiya fekk sidna cheikh radiallahu anhu am na fanweeri at ak benn ci la cheikh tabaraka wa taala anhu eh, delluwaat aynu maadi ak gox ya nga xam ne ñoo wër aynu maadi dégg nga dem ca al abyad jóge fa dem tilmisaan fi nga xam ne fa la tajeeg sidi tahir bu tayba radiallahu taala anhu bi ma amee fanweeri at ak juróom benn nag moom cheikh muy mille cent quatre-vingt-seize ci hijriya mil mille sept cent soixante douze ci juddoo yonent yàlla isa alayhi salaam ci la cheikh radiallahu taala an décidé nag ne dafay dem aji makka waaye jaar na tunus def na fa at ci diggante tunus ak suusa difa fa jàngale waaye di fa gën a yaatal àlluwaam foofit gis nga cheikh ñetti capital yi gën a mag ci xam-xam ci jamonoom bu nekk rek dem na fa bañ yéem xam-xamam musa faa jógee dem feneen xarawiin la njëkk a jaar muy Faas nga xam ne bokk na ci université yi gën a yàgg nga xam ne Fatima al-Fihriya moo ko sos joge fa jaar tamit yi nga xam ne eh, université bu mag bi nga xam ne moo nekk ca Tunis ñu gën ko wax ñu koy wax Qayrawani wala Zeytuna foofu tamit Cheikh Tidiane radiyallahu anhu jaar na fa daje faak nitu yàlla yi daje faak borom xam-xam yi dem sax ba nga ko buuru dëkk ba proposé na ko pour mu toog yore université ba yore njànguma ngir ñu wutal ko kër di ko fay di ko defal di ko defal waaye mu bañ loolu ba mu jotee ci lettre ba rek la préparé jàll misra fa nga xam ne fa la dajee ak Seydi Mahmoudul Kurdi radiallahu tabaraka wa taala anhu Cheikh Tidiane nag bi mu demee Makka ba jógee fa 1188 mu tombeeg 1774 booba am na 38 ans ci la njëkk a dajeek Seydi Mouhamed ibn al-Mishri radiyallahu anhu dégg nga ci la del it Limsaan radiyallahu taala anhu Mouhamed al-Mishri xam ngeen ne Cheikh Tidiane radiyallahu bi mu dajeeg moom dégg nga mu jàpp ci moom xalwatiya ni nga xamee ne it bu dajeeg Seydi Tamasin Seydi Ali euh, Seydi Ali Harazim dana jàpp ci moom xalwatiya bala tariqa bi di euh, feeñ gannaaw ga Sidi Mouhamed ibn al Mishrimi Cheikh Tidiane dana ko def ilimaan ba mille deux cent huit muy soog a jot ndigalu kenn dootu ko jiite nag lu dul ci jumaa radiallahu tabaraka wa taala anhu dégg nga mille cent quatre-vingt-onze nag tombeeg mille sept cent soixante-dix-sept ci juddu yonent Yàlla Isa alayhi salaam booba Sidina Cheikh mi ngi am quarante et un ans ci la dajeeg Seydi Cheikh radi eh, Ali Harazim kon Seydi Misri la njëkk a dajeeg mille sept cent quatorze dajeeg Seydi Harazim mille sept cent soixante-dix-sept waa Wajda booba Cheikh Tidiane dela anhu ma ngay dellu Faas ñaareelu yoonam ngir ziyaare eh, fas ziyaare Mawlaaya Idris Cheikh Tidiane nag ba mu jógee noonu di delluwaat eh, dégg nga mi ngi wax Seydi Harazim naan ko bu jógee Faas dégg nga dana jógee eh, fa mu nekk pour mën a pour tuxu ngir lan ndax Cheikh yàlla daf ko defoon tilimsaan gi mu nekkoon ak bépp dëkk bi mu mos a nekk nit ñi dañ koy ñëwal di ko wër di ko géew di ko ñaan di ko ñaandu di ci moom di barke ndax xabool gi ko yàlla mayoon waaye moom mu daa daw nit ñi ndax loolu taxu ko wono jog jóg loolu nag booba nag ci la décidé daal di tuxu ca chalaala dégg nga fa nga xam ne fa la euh, sidil abiyat nekk fa nga xam ne fa mooy diggante atwaat ak digg boobu la nekk mille cent quatre vingt seize la loolu am mille sept cent quatre vingt et un ci gàddaa ci euh, juddu yonent yàlla isa alayhi salaam booba na Cheikh mi ngi am quarante six ans ci at moomee nag dégg nga ci euh, désert boobee nga xam ne Cheikh radiallahu anhu amuloon beneen yitte budul ndongo yu ndaw yu tuuti yene newoon foofu muy dajeeg ñoom di leen jàngal ci jàkka ji bu ca jógee dugg ci baytu xalwaam di fa zikar yàlla yeggoon na ci ba nga xam ne dafa takkoon buum ca kaw teeg ba wàccee ko ci doxam ngir bu bëggee nelaw buum ga daal di ko euh, bipp nga gis ne <coughs> yàlla aide waaye it nag du may koo xam ne ubbiwut boolam yàlla duwul ne ku wut mu may la waaye du may ko wutut nag Cheikh Tidiane li ko yàlla may ëpp na dégg nga mu mu may goo xam ne dañ koy wut waaye nag wut nag mu jaar fi ñëpp di jaar ci wàllu farlu moo ëppale ñëpp terewul nag moo gënoon a farlu ñëpp radiallahu tabaraka wa taala anhu ci xalwaam juree jooju nag ci la dajeeg yonentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sax bi sallama dégg nga yaqazatan laa manaaman dégg nga ca abu samxuun ca la tariqa bi juddoo yonentu salallahu alayhi wa sallam may ko ndigal ci azkaar yi nga xam ne ñooy azkaaru tariqa yi lim ko njëkk jox mooy istixfaar ak salaatu alfatixi lima uxliqa dégg nga bañ ci tegee ñeenti at ci la xayla la a wàcc la jot xutbaaniya ñii ne déedéet xutbaaniya ca kanam la koy jot ala waaye ñii ne déedéet la muy jot ca kanam xutbaaniyatul uzma lay doon ak xatmiya katmiya radiallahu taala a fii la amee xutbaaniya moom Cheikh Tidiane ndax fii la amee alfathul akbar fii la dajee yonent yàlla Muhammad lim doon wut ci sëriñ si yëpp mu të ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko amee yonent ne kon nag yow kenn warta wax ne maa defal Cheikh nangam maay sa wayjur maay sa maam waaye maay sa sëriñin maa lay yar ba lépp li nga xam ne ni yaa ngi koy wut nga am ko ba am sax lu kawe loolu Cheikh nag dana nekk foofu ba mille cent quatre-vingt-dix-neuf tombeek mille sept cent quatre-vingt-sept fekk mi ngi am quarante-neuf ans ci lay nag eh, dégg nga moom Cheikh joge foofu jëm ci bu Samghun radiallahu tabaraka wa taala anhu dégg nga Cheikh Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu ci mille deux cent muy mille sept cent quatre vingt cinq fekk mi nga am cinquante ans ci la ko yonentu sallallahu alayhi di yeggalil wirde wi ni ma leen ko waxee woon léegi radiallahu tabaraka wa taala anhu cheikh radiallahu taala anhu nag bi mu amee cinquante ans deux cent quatre dégg nga ci hijra yonentu sallallahu alayhi wa sallam tombeeg mille sept cent quatre vingt neuf ci milaadu sayidna isa alayhi salaam ci la taalibeem boobu nga xam ne moo njëkk a jël tariqa bi di istishhaad mooy ci lay nekk shahid ci lañ koy boom mooy Seydi Mouhamed Ibn al Arabi ad-Damrawi radiallahu taala anhu nga xam ne cheikh moom la nekkaloon ca xalwa waja ba cheikh di génn keroog ca xalwa ja fekk yonentu sallallahu alayhi wasallam jox na ko tariqa bi bi cheikh génnee ci moom la yem moo moom la jeex cheikh njëkk a jox tariqa buñ la laajee ku njëkk a jël tariqa cheikh Tidiane ci euh, àndandooram neel Seydi al Arabi ad-Damrawi moom la moom mooy moom la cheikh joxoon salaatu boobu nga xam ne mooy asalaatul jamia nga xam ne su ko waxee rek dajeeg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ni ñaar fukki yoon ak ñeent daan na ko gis bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul nelaw bés bu ne te mi ngi ko amee ci barkeeb Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu Cheikh nag foofu lay nekk ba 1213 tombeeg 1798 ci lay gàddaale nag dégg nga jëm faas booba Cheikh Tidiane am na atum yonantu bi yàlla Muhammad mi nag sallallahu alayhi wa sallam am na 63 ans maanaam fa la war a làqoo nit ñi nag dootuñ xamati moom mooy kan ndax. ca at ma ca topp maanaam ci début at ma muharram ja ca topp nga xam ne mi ngi ci diggante 63 ans 64 ans ci lay jotee maqaamam al qutbaaniya al uthma dégg nga ci lay jotee maqaamam al xatmiya waaye al katmiya yi ca la koy jotee ci fukki fan ak juróom-ñett ci safar kon nag muharram 1214 dégg nga tombeeg 1799 ci miladiya ci la Cheikh Tidiane jotee al makama al maqaama al qutbaaniya al uthma ci lay jotee it xatmiya ci lay jotee katmiya ci fukki fan ak juróom ca safar Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu nag ci atum mille deux cent quinze ci hijriya tombeeg mille huit cent ci miladiya fekk mi ngi am soixante cinq ans radiallahu taala anhu ci la tàmbale tabax zawiyam bu barke boobu ci fas faas radiallahu taala anhu moo ne at moom sax nag ci la Seydi Mohamadul Habib di doomam ji mujj nga xam ne tey njabootam gi ngay gis ci kaw suuf yëpp mën ngaa wax ne moo leen jur radiallahu taala anhu ci at mooma la juddu Cheikh Tidiane radiallahu anhu bi mu amee soixante huit ans tombeek mille deux cent dix huit ci hijriya di mille huit cent trois ci miladiya ci lay daje ak taalibeem bu mag boobu di Seydi Ibrahima Rayahi radiallahu taala anhu borom siiniya bu siiw boobu nga xam ne wax nañ ne ku koy jàng doo ñàkk waaye ku koy jàng da nga nekk waliyu ku koy jàng da nga aaru jàng da nga am barke ku koy jàng yiw yëpp dana la ñëwal radiallahu taala an maulana cheikh wa an tilmisihi seydi arrayahi dégg nga jamono jooju nag ci eh, at mooma nag eh, seydi rayahi moom mi ngi jaaree ci xamamteem ak cheikh mi ngi jaaree ci seydi harazim booba fala la jaar di dem madinatu di dem makka bam ajee moom bay dem eh, madinatu munawara ca gazwa ca fañ badr amee foofa la ko dégg nga ak faatu ñëwalee gannaaw adkaar ak ak axwaal ya nga xam ne ñoom la dajal radiallahu tabaraka wa taala anhu mille deux cent vingt quatre nag ci hijriya tombeeg mille huit cent neuf ci miladiya booba sayidna cheikh mu ngi am soixante quatorze ans ci la taalibeem bu mag boobu di saydi ibn al mishri radiallahu taala anhu gaañu ca ayn madi saydi harazim moo bind jawahir mooy xalifaab cheikh ala al itlaq bind al jaamiu lima taraqa min ulumi sidi mawla mawlaaya abil abbas ahmad tijaani radiallahu tabaraka wa taala anhu bi nga xamee ne nag cheikh tidiane radiallahu am na soixante dix neuf ans nga xam ne benn at ko dese ci kaw suuf ci la taalibeem bu mag bii di sayd al arabi ibnu saih radiallahu anhu borom bujatul mustafid di charxa charxa uh, téere bii di muniyatul murid bu tidiane ibni baaba mille deux cent vingt neuf la ci hijriya di mille huit cent quatorze ci miladiya ci la euh, Sidi Arabi juddu boobu na Cheikh mu ngi am soixante dix neuf ans moo tax jamono yële ñi doon coow naan waaw Sidi Arabi wax na ne dégg nga allah allah dégg nga bokkul ci du moom du ko wirda def ko bañ wala Cheikh daanu ko wirda ma ne ah Sidi Arabi de gisantewul ak Cheikh radiallahu taala anhu te wax jooju ñuy wax ne moo ko waxit newul ci téeréem bii di buuratul mustafid ka wax wax ja ma ngi ko tudd ca a achafiya te waaye fa mu tuddee loola ca risala chafiya ca même page ba borom risala chafiya wane ne na allah allah daan nañ ko wirda ci jamonoy Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu wax na ne moo doon cosaan la ci wirda wi dégg nga ci jamonoy cheikh ak ci gannaaw cheikh loolu la borom risala chafiya wax waaye ñiy bëgg a sikkal tariqa di bëgg a sikkal asr zikru asrul jumaa dégg nga yematuñ nag naan yonent bi waxu ko woon gannaaw bu yonent waxee ne suuf àdduna du tukki feeg am na koy wax allah allah dégg nga gannaaw bu yàlla waxee ne waxal allah qulillah summa darhum fi xawdihim yalabuuna yegg romb nañ foofu nag léegi nag ñu bëgg a dugg ci tariqa bi ngir sikkaloo nit ñi ci loo xam ne nii ngaloona Cheikh Tidiane radiallahu anhu daan na ko def ni ko a euh, Umar euh, Umarul Fuuti bindee ci rima xizbi rahim ala nuxuri xizbi rajim te Cheikh Umarul Fuuti jëlee ko ci Sidi Mouhamadul Ghali mi nga xam ne ci Cheikh Tidiane dégg nga la la jëlee nekkoon xalifaam sax ca mashriq te Seydi bu ñuy wax ci at Seydi Arabi mii Cheikh Omarul Fouti yoo ko mag ndax Seydi Arabi bi muy ga bi muy bi muy juddu dégg nga benn at moo dese Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci kaw suuf Seydi Omarul Fouti dund naag Cheikh Tidiane fukki at ak juróom-ñaar jàpp fukki ak juróom donte gisante wuñ waaye gisante xalifa xalifaab Cheikh Tidiane mu wax ko li Cheikh Tidiane daan def mu jëlee ko ci moom kon nag loolu le eh, amul amul amul amul benn cislaay te tamit ki koy wax ngir sikkal nit ñi téere ba mu tudd téere ba mu ba muy tegtaloo téere booba borom ci boppam wax na ne Cheikh Tidiane daf daan wax laa ilaha illallah ci zikrul juma da daan wax it allah allah ci zikrul juma Cheikh Tidiane sax am na ci wirdaam yi wirda woo xam ne ma nga commencé ci allah allah naka noonu tamit ci jawaahirul maani ba muy wax zikru asil jumaati daf ne ala tariqi alxalwatiya te alxalwatiya dañ ko daan def ñoom dañ daan wax allah allah niñ daan waxee laa ilaha illallah ni nga xamee ne noonu lañ ko tasaaree leeral ko ci téere tariqa bi kon tariqa bi lépp dafa tege ci sharia waaye lépp it dafa leer dégg nga jógee ci cheikh na tijaani kaabiran an kabirin ba si ci ñun Mawlana cheikh moom nag radiallahu tabaraka wa taala anhu mi ngi fi joge dégg nga bi mu amee juróom-ñetti fukki at dégg nga ci la fi jógee ci zahir loolu mooy 1230 ci hijriya gàddaay yonentu sallallahu alayhi wa sallam tombeeg mille huit cent quinze ci dégg nga juddug yonent yàlla isa alayhi salaam loolu nag mi ngi nekkoon suba si alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri shawal boobu la fi Mawlana Cheikh radiyallahu anhu jóge ci zahir donte ci batin eh, jógewu fi mu ngi ak ñun ni nga xamee ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mi mu fi jógee ci zahir ci batin jógewu fi mi ngi ak ñun ndax ashuhadaau jógewuñ fi ñu ngay dund fa sen borom te shuhadaa yu nag akaabirul aqtaabi dégg nga bu fekk ñoom ñoom may gañ may gañ am dégg nga romb na shahaadatu dégg nga rawatina nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam te lil waarisi ma lil mawrusi te Cheikh Tidiane radiallahu anhu moo doon yonantu fu yonantu dib yonantu rek mu nekk fa dib waliyu ñuy ñaan yàlla mu taas ñu ci barkeem nubda bu gàtt bi ci taarixu Cheikh la ñuy barkeloo ci ubbi jotaay bi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali di ko ubbee ci zoom bi di ñaan suñu mbokk yi nga xam ne bokk nañ ñun ñëpp ñu tasaare dégg nga lii nii nga xam ne mooy mbirum euh, fédération bi ndax fédération bi mooy mbootaay goo xam ne moo ëmb gépp kër goo xam ne mu ngi askanoo ci Maulana Cheikh Tidiane radiallahu tabaraka wa taala anhu fii ci Amérique jar na ñu fonk ko jar na ñu yaatal ko jar na ku képp koo xam ne dégg nga ko nga xamal ko sa morom lépp loo xam ne ñu ngi ko cay yëngu it nga def ca loo mën ak loo mënut nga xam ne loo ci def defaloo ko kenn sa bopp nga ci nga koy defal ndax Cheikhu Tidiane radiallahu taala anhu moom soxlawul kenn ci ñun ñun ñoo ko soxla ni nga xamee ne yonentu sallallahu alayhi wasallam soxlawul kenn ci xeetam wi xeetam wee ko soxla li nga xam ne sama borom tabaraka wa taala soxlawul kenn ci jaam ñi jaam ko soxla hada wa sallallahu ala maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama